Leçon numéro cinquante un fazul zanbin gàcce goo xam ne ak toroxtaange goo xam ne bakkaar moo waral wa balaa in ak balaa ya ca topp te balaa yooyee yax sulu ma nga ca bàkkaar booba dal jàmba nattu ya yàlla nattu jàmba ba yooyu yépp dal ko teg ko nattoo ko mu jëf bàkkaar mu jural ko toroxtaange akak suufe ak ak matadi ku yàlla nattoo loolu na nga jàpp ne yow jaam boobu loolu la yàlla teg afdalu moo gën min isirus din ci tedd goo xam ne jub moo ko may nga ne ah, lu waral lii mu ne wa in ak ay may yu kowe yoo am te ak jub may la ko nga ne ah foofu nag dinaa poser question lu waral sëriñ bi wax lii mu ne yaari mucc yaa tax mu ne ndax wa fii nekk na ci toroxtaange boo xam ne bàkkaar moo la ko teg ak balaa yoo xam ne def bàkkaar moo la ko teg nekk na ca duxu nafsi jaam bi day yëg ak doye ci boppam yëg ak mata di ci boppam wata xiiru yëg ak xeebu ci boppam yëg-yëg yooyu mu yëg ci boppam te mu di mata di tabakaar teg ko ko day tax loole wa man xooxaa daf koy mujj tere al isyaana ak mooy yalla wa takfiiru ak njéggalal yàlla ndax dina bàyyi mooy yàlla ba faw sax ci di jéggalu yàlla ba faw loolu nag da koy jural boroomam jéggal ko te wa fii nekk na ca matadi yooyee mu yëg ca boppam iqbaalu nufoosi day jubale boppam iqbaalu nufoosil aaxira day jubale boppam ak soxlaay boppam yépp ci àllaaxira toujours ma ngay góorgóorlu di def lu neex yàlla ba bu demee àllaaxira am fa ngërëmal yàlla lu yaatu ba am ab yool day mujj ca loola dong lay jubale boppam loolu nag da koy jural wala ajur ab yool bu rëy in radiya bu dee gërëm na loole ko yàlla na nattoo ba mu def ay bàkkaar mu nangu dogalab yàlla boobee mu teg ca boppam mu nangu ko wal mu baadara boole ci nag gaaw tuub te dootu ko defati te sax dàkk ci luy gërëm loo yàlla mu ne kooku day mujj kowe lool te bàkkaar ba ko ko jural waaye kee nga xam ne mësta am jafe-jafe yooya day mujj ne yàcc dootul góorlu ndax day jàpp ni moom léppam baax na far kii jëf romb ko ëpp ko kawe ca fa yàlla hmm. sëriñ Tuubaa Masalikul Jinaan sëriñ Tuubaa nee day mujj borom bàkkaar boobu loolu mu yëg ci boppam da koy jural wataaxatul baatini topp yàlla biir bu niti kese demee ca jàkk ji julli ñëw toog jàpp seen njàmbur moom fu mu topp fu mu toog fu ne ma ngay wax astaghfirullah bu yeewoo guddi ma ngay wax astaghfirullah ma ngay sàkku njëggalal yàlla ma ngay sàkku ndimbalal yàlla ma ngay topp yàlla ma ngay tudd yàlla ba mujj day koy jural ak goo xam ne day romb ñi ko ëppoon tedd nga koy topp yàlla biir day ànd ak nit ñi ca la ñuy def ñu ko gis ci topp yàlla bu beroo tamit ma ngay topp yàlla te kenn du ko gis kooku day mujj raw leen wasafaahu te mujj day gën a sell ñooña sax far ay dan ba tey ndax fu mu toll maa taskirin mi ngi ànd di fàttali ko ay wakkaaram wasifaahi te da koy jural nag ay mbiram lépp yàlla saafara ko ndeysaan ndax koy fàttali ko di tuub day mujj yàlla saafara ay mbiram te jàppal ne topp yàlla biir googu mu yëg ci boppam doyadi gi muy yëg ba fu mu toll ma ngay tudd yàlla di góorgóorlu di def lu baax fexe ay baax baaxam bari topp yàlla biir googu mu nekke moom jaab yàlla boobu xamal ne wataaxatu baatinatun topp yàlla biir googu afdalu moo gën sax min saahiratin ci topp yàlla ga nga xam ne daa feeñ ñëpp di la gis fu ñu la fekk yaa ngi topp yàlla bu nit ñay nelaw soo yeewoo sax yaa ngay tudd yàlla yaa ngay sàkku ngërëmal yàlla yaa ngay sàkku njëgal ak yàlla xamal ne loolu moo gën a kawe foofu topp yàlla ak biti lu ñëpp yi gis ak di ko seede te it jàppal ne topp yàlla ak biir moo ëpp doole foofu topp yàlla ak biti topp yàlla ga nga xam ne ñëpp lay gis di ko xam ndax loola ngistal mën na koo waral ndax wàccuwaay ya ngay am ca xoli nit ña ay topp yàlla biir moom kenn du ko xam doo ca jaare ba am benn wàccuwaay ca xoli nit ña kon topp yàlla biir ga mu lay jural day tax nga dépassé gaaña wax jii nag sëriñ Tuubaa nee na àllaati faaxin nekk na ci dëppook mbooleem woroom xam-xam ya lam namin narunu dëgg la de sëriñ Tuubaa na ndax li annaha naka topp yàlla ak biir googe asxalu moo gën a diis fuuf ci bakkanam nit ki yaa xalili yow sab xarit topp yàlla ak biir asxalu moo gën a diis ala nufoosi ca bakkan ya yaa xalili yow sab xarit kon topp yàlla biir moo gën a diis ala nufoosi naasi ca bakkani nit ña lil xumool ngir géem ga kenn du ko yëg kenn du ko gis ba di la teg ci wàccuwaay bu kowe foo toll rek yaa ngi yore sag suufe ca xoli nit ña yaa ngi yore sag suufe ci sab xol te fekk yaa ngay jaamu yàlla guddeeg bëccëg yaa ngay tudd yàlla guddeeg bëccëg boo toogee sax yaa ngay tudd yàlla te nit ña duñ ko xam looloo tax topp yàlla googu daa gën a kowe waaw akbar foofu la yem ci li nga xam ne moom la addina mana a doom aadama ba du am ngërëmal yàlla mu joxañ la ko jàngal la ko wax la cay pexe wax la ni ngay def ba am ngërëmal yàlla mu ngi ñëwaat te leneen fasloon lii ab dog la ba tey wa min bokk na ca ya nga xam ne boo moytul sa bopp mu doon ab ñag baare sa digganteeg ngërëmal yàlla lii mu lay waaj wax na nga ko jàpp bu baax te dégloo ko xel ndax tamit léeg-léeg ees waru amin wu bokk na ca ya nga war a moytu saaxiya saa àndaale yow taalibe bi déglu tey jàng sa diine annaasu nit ña nit ña dong mën nañ laa yiir ba doo am ngërëmal sa borom sëñ Tuubaa na kon farfahi na nga yëkkati alhimam sa itte ya anhum rombale leen ko na nga yëkkati say itte mu romb nit ña jëmale ko ca yàlla fil xaw fi nga boole ca ak ragal yàlla watamahi ak ak xemmam yàlla tux taram kon dees na la warmaal laa tastakki bul di jàmbat mukk alxaajaati say aajo lil xalaayiqi di ko jëmale ca bindeef ya bu leen di say aajo pour ñu di la ko fajal bal lu fi nekk iftaqir na nga aajowoo sa boroom na nga aajowoo sa boroom fajal la say aajo waaye bu ko diis nit kon iftaqir na nga aajowoo ngir mu fajal la say aajo illa alxadiri jëm ca aji attan ja di sunu boroom alxaalixi kay aji bind ja jaam ña de ko di say mbir mu di la ko fajal wa ahridan tayit na nga dumooyu anhum nit ña la daal it baari bu dee ñoom dañu la dumooyu yow na leen dumooyu won leen ginnaaw wa aksihi ak safaan ba it bu amee dañ la jublu ñoom ñëpp teewul na nga leen dumooyu jublu yàlla wax nax te nga doyloo bi ilmil baari ci xam-xamam yàlla ba nga xam ne mooy aji bind ja jaam ña sax masaalik euh, nit ku kowe lay waxal téere bi téere tasuf la boo xam ne fa mu lay fekk loo baax baax ak loo set set da lay gën a fóotaat ba nga weex tàll doon jaamab yàlla bokk ci wàlliyu ya masaalik boo ko jàngee jëfe ko da ngay doon wàlliyu amul xejj amul seen moom ku ko jàng jëfe ko rek doon wàlliyu